ginnaaw bu ñu sante yàlla julli seen sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu jiitu kër gi laaj bugaan di ñaan ñaanal di ñaanal jabatam ñu ngi nuyu personnel bi di nuyu Sénégal yëpp tey dañu ñëw di waxtaan a yéen si émission bu am solo boo xamante ni yàgg nañ ko waaj bon jot si ay sollicitation aussi un peu partout muy émission boo xamante ni mu ngi tourner toujours autour du jabet jabet nag dafa jaaxal nit ñi trop na jabet bi nga xam ne dafay ànd ak ëmb muy la jabet gestationnel wala jabet de grossesse euh, nekk na jabet boo xamante ni du toujours lay nekk euh, jabet gu wér mooy jabet bu dëggu vrai jabet mais mel nekk na li si ëpp jabet boo xam ne jabetu ëmb lay doon bu boo demee ba am doom mu dañ moo tax baax na kii dugg si ëmb ñu koy defal toujours glycémie di jël suukaram xool fu mu toll pour xam ndax dafa ëmbaale jabit bi moo tax toujours analyse ñu koy def en début de grossesse boo ëmbee lekk euh, na jabet boo xam ne li koy waral mooy lan mooy soo ëmbee en général dafa am lu ñuy wax ay hormones anti insuline dañuy commencé di feeñ Beaucoup na les hormones placentaires ak les hormones de croissance yi nga xam ne mooy tax favoriser fœtus boobu di jël poids di avancer kon loolu su amé, pancréas bi muy gàddam bi dafa di yokk production insuline pour pallier à l'hyperglycémie mooy taux sucre bi mais du toujours nag lay pancréas boobu di gardam bi di mën a suivre loolu dina benn moment mën na taay loolu mu sonn su ko defee dootul fournir ce surplus d'insuline bi waroon a réguler suukar bi nekk en excès defee lu muy jur mooy suukar dafay dajaloo si deret ji indi hyperglycémie mooy taux élevé sucre si deret kon loolu mooy jur le diabète gestationnel muy diabète bi ànd ak muy diabète de grossesse nan lay feeñe nag yan symptôme lay àndal mooy jigéen ji dina bari lu muy saw dina am benn soif bu intense maanaam dinay bari lu muy mar naan dinay xiif aussi xiif da koy yomb dina am léeg ay infection da ko yab feebaru saw yi koy infecté lu bëri dinay am fatigue buy nekk si yaram léeg mën na perdre poids comme mën na jël pois am na siti type boo xamante ni forme boo xam mën na yokk poids am am na si boo xam ne poids mën na wàññeeku kon symptômes yooyu su ko jigéen di am seen war na dem def test ñu xool ndax réellement du lu ñuy wax diabète gestationnel. lii jafe-jafe bi nag mooy dañ ko war a de très près ndax boo ko deful conséquences yi mën naa grave ndax mën na jur hypertension si biir ja euh, ëmb bi sa tension mën na yéeg mën na indi avortement spontané mën nga perdre sa ëmb. si lu gaaw loo xam ne lu gaaw lay doon mën na yokku taayu fœtus bi ba buy juddu da ngay mujj def césarienne ndax dootul mën a tee génn normalement naturellement kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax kon ñu sóoraale ni saa yoo ëmbee di am symptôme yooyu muy mar yàpp la sa appétit yokku ngay jël poids wala la nga jeex sa saw di bari ngay fatigué di am ay crampes na nga dem xool suukar seet ba xam yéegul ndax boo ko deful am na ñu am dem ba malformation sax si yu mel nii lañ koy lañ koy jëlee kon suukar jar nay surveiller si anam yu nekk mais si ki mu rawati mooy ki nga xam ne dafa nekk en état de grossesse mooy dafa jël ëmb. kon loolu mooy jabet diabète gestationnel bi nga xam ni nit ñi yàgg nañ koo laaj ñu leen di wax ni leeral yaa ngi bari nañu koy am nag ñoo xamante ni boo xoolee téeméeri jigéen yu mu dal bu ñu amee juróom ñeen fukki bu ñu amee doom dafay disparaître ñu dalaat fay nekkoon mais dafa baax di surveiller di jël loo xam ne daf koy mën di réguler ba doo am jafe-jafe su ñëwee si solution yi bu la dalee comme ëmb la du lépp nga mën a jël mais mën nga wut tóortóoru garab gi ñuy wax la permission pédescale tóortóor bi ngay jël mooy partie bu weex bi ngay gis nii su ko defee boo si amee juróomi tóortóor nga infuser ko si lu tolloog litre ndox di ko naan par kaasu attaaya boo ndekkee boo añee bare gaaw na si wàcce suukar boobu loolu benn tegtal la beneen bi mooy mën nga wut laurier aussi juróom-ñaari xobu laurier nga baxal ko si litre ndox su baxee juróomi bi nga segg ko di ko jël par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee bare loolu baax na ben bi aussi mooy soo amee citronnelle aussi baax na nga jël benn poignée nga infusé ko si un litre d'eau di ko jël par kaasu ataaya boo ndekkee boo añoo loolu mën na régler sugar si te it wàññi les repas sucré lu mel ni ceeb bi lu mel ni mburu mi lu mel ni suukar si aussi nga wàññi ko yàlla mën na dimbali nga dem ba am doom te am problème di jël suffisamment de légumes aussi pour réguler loolu di sugar si su ñëwee si question nii indi tey kii dafay laaj ni moom daal dafay bari lu siñam di naaj muy wut solution kooku li ko waral souvent mooy manque de vitamine C moom la scorbut mbuuraan fa faral di jël vitamine C lu am vitamine C lu mel ni limon lu mel ni orange lu mel ni pamplemousse lu mel ni goyave boo ko day jël kaani nga koy toj ci léeg-léeg te boo xëyee nga jël benn limon pajal ko sa gémmiñ bàyyee ko juróomi minute nga segg ko naan yàlla mën na dimbali loolu saafa saafara kii dafay laaj lu baax si ndoxum siti dañ la digal ñaar boo amul ulcère ma nga du xasum xay boo amee benn xas rek baxal ko si litre ndox di ko naan par kaasu ataaya boo ndekkee boo añee boole beneen bi bu dee da nga am estomac mënoo supporter xay bi wutal mbërëb boobu sa loxo ba mu fees nga baxal ko si litre ndox di ko jël par kaasu ataaya boo ndekkee boo añee boole ñu leen tàggu fii jox naan subvention bi jërëjëf